que vous voyez là ñëw bi nga xamante ne di jaar ñu ngeen xamee gis nii mooy caravane Yewwi Askan Wi ñoom ñoo nekk nii taxaw lii ngeen gis nii en face de mooy waa Macky Sall ak seen tuutaay bariwuñu waaye ñëw nañ taxaw suñu kanam jàkkaarloo ak ñi nga xamante ñoom ñooy euh, caravane ñi nga xamante ñoom ñooy yeewi askan wi pour ñëpp xamee ko noonu ñoo ngi nii suñu kanam en ce moment distance ñun suñu caravane bu yeewi askan wi mi ngi taxaw ñoom ñu ngi ñëw taxaw suñu kanam taxaw fi ñuy jaar muy Macky Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar kon ngeen xamee ko noonu lii lañ na woon bëggoon nañ ngeen gisal ko seen bopp. au cas où ñu war leen a informations incha allah di ngeen lii encore une fois de plus maa ngi nii ci waa benn bokk yaakaar ñoom ñoo taxawee nii voilà ñoo taxawee nii bëgg a xañ yi nga xamante ne waa benn bokk yaakaar. Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ñëw fekk si li nga xamante ne moom mooy caravane Yewwi Askan Wi ñëw taxaw suñu kanam ñoom waa Benno Bokk Yaakaar voilà ngeen gisee ko noonu lii mooy li fi xam pour xañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy coalition Yewwi Askan Wi mu continuer li nga xamante ne moom mooy yoonam continuer caravane gaa yaa ngi avancé mais devant waa Benno Bokk Yaakaar ñoo taxaw ne dañuy xañ li nga xamante ne mooy la coalition Yewwi Askan Wi mu avancé lii mooy li fi am je tenais à ce am ko parce que iPhone ba moom daanaka nelaw na. voilà exactement. ils sont trop violents. voilà ils sont tous des agresseurs. voilà mais fii voilà voilà ñoo ko gisandoo gis ngeen li xew fii ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñoo taxaw suñu kanam na ñun duñu jàll voilà pour bëgg jàmm gars nee nañu ñoom dañuy jàdd changer de voie continuer suñu yoon donc waa Benno Bokk Yaakaar taxaw nañ suñu kanam tere ñu nee nañu duñu jàll fi ñu bëgg a jaar néanmoins caravane Yewwi Askan Wi jàdd na jël beneen yoon ngir ba ci jàmm et je encore une fois de plus que li gis fii du dara lu dul waa Benno Bokk Yaakaar ñu kar caravane Yewwi Askan Wi fii ci Kaolack ne ko du ngeen jàll ba mu commencé am échauffourée donc les leaders de la coalition ont décidé de passer outre jaar ci beneen yoon pour bëgg jàmm lii mooy li nga xamante ne bëggoon nañ leen ko jox comme information dinañ ko partager ak yéen tout à l'heure ci page yu Jotna Media Group pour yéen ñëpp ngeen am les bonnes informations lii mooy en ce li nga xamante ne moo am. fii ci Kaolack fii ci dëkk bi